bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa maa ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara euh, di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ku nekk di ñaan yàlla def ko ci àdduna bi def ko ci Afrique def ko ci senegal def ko ci Kawlax euh, di ñaan yàlla Kawlax gii nga xam ne dëkk la boo xam ne muy dëkku Mawlana Cheikhul Islam El Hadj Ibrahim di dëkku Cheikh Sëriñ Bassirou Mbacke di dëkk suñu maam Abdoulaye Abdou Hamid kan waaye dëkk nag suñu maam El Hadj nga xamante ne ñii ay góor la ñoo xamante ñu am solo bu ko defee kon damay gis na Kaolack depuis wal jooja amul benn chancement amul benn changement benn changement amu ko su ko defee nag loolu nag lu ko waral te kawlax képp koo xamante ne rek yaa ngi jël réew mi Kaolack da fii fiy gañe Kaolack moom kenn mosul toog ci réew mi te gañe woo Kaolack kenn mosul am mosul am loolu moom man mosuma ko fekkee ba ma dalee voté mosuma ko fekkee bokk naa ci élection maire bokk ci list boo xamante ne ñun front républicain moo ñu abaloon système ñu dugg ñu jàll si waaye damay gis ne toujours aussi maire bi fiy nekk majorité président moo koy toujours moo koy indi conseil yi nga xam ne moom la ñuy fal parce que li ñuy falee conseil la ñuy fal bu ñu falee ay conseil conseil yu léegi ñoom ñooy dem fali maire su ko defee bu fekkee maire président nag moo fi ne bu fee teg kañ fi bëgg teg nañ bàyyee kaw la ñu tànnal seen bopp te damay gis jamono guñ tool nii nag léegi nit ñi ñu ngi yeewu population Kaolack ñu ngi yeewu eh, dinaa cité ñoo xamante ne ay liggéeykan lañ ci kawlax ñii man de gëm naa ne ku leen jox Kaolack Kaolack tegu ci yoon benn muy koo xamante ne doomu Saalum la muy Pape Demba bi tey beneen bi muy Ousmane Noël beneen bi Abdoulaye ñu ñooñu nga xamante ne comme sëñ Mamoun Niass sëñ Mamoun ku nekk xam na ni bëggee woon Kaolack amul lu mu deful Kaolack pour jotoon maire parce que Kaolack amul benn benn benn avancement bu fi nekk bu taxutoon ak kilifa diine yooyu ma la lim fii fi maam El Hadj Abdoulaye ñu tëddal ko ci réew mi wala yàlla bu mag boobu ak doomam yooyu nga xamante ne maam xalifatu Muhammad ku mel ni Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass wallahi Kaolack danañ xëy duñ am luñ lekk duñ am luñ naan Kaolack bëriwut benn koom wala bëriwut leneen loo xam ne ñu ngi ci digg waaye doo dugg Kaolack ba gis fenn ñu xiif wala ñu mar loolu yëpp ñu wàllu yàlla yooyu moo fi dem waaye dama wax politiquement doxul amul am amul njariñ gis nga dafa am koo xamante ne wallahi mosuma mosuma ko gis mu Ousmane mel Ousmane Noël mosum toog waaye gëm naa ne ndaw la te gëm na réewam. am na ñeneen ñoo xam ne lañu rek fi nekk naxant naxanteeg nit ñi askan wi dem buubi buñ ñëwee jox leen ñu ñëw su ko defee ñu nax ñenn ñi dugal leen ci ay yoo xamante amul benn njariñ kon nañu ñu ngi ñaan suñu njiitum de président nañu fexe Kaolack gii nañ bàyyi waaye Kaolack tànnal seen bopp léegoo léeg sax danga gis danañ président dana bàyyiloo léegole mu bàyyiloo tànn ay nit parce que tamit léegole ñu tànn nit koo xamante ne président dafay bàyyi waaye dëkk ba waaye buñ ne waay dëkk ba doo dem benn kër rek ne tànn leen kenn ku toog ci maire bi ni ñuy tànn doxe kaw tànnal seen bopp mooy nañ def raw gàddu comme ni ñuy falee présidentielle nga xamante tête de liste bi toujours moom moo nekk maire ma xam ne man mii Makhtar Sylla bii nii laay votel pour mu nekk ci maire bu toogee dafay toog directement waaye su fekkee dañuy fal ñun dañuy fal te ñu bëri xamul ko ñun ay conseil la ñu fal moo tax da ngay ñëw euh, da nga daan ñëw sa liste nga koy présenté ba bu ma daan bu ma def sama campagne ma ne la waaw li ñu am liste nangam nga ne wax kuy seen tête de su ma la waxee diw fekk xamoo ko di man dama lay expliquer ne la man man nga war a fal ma nekk sa conseiller teewale ci mairie bi lépp lu sa quartier war a am ñu am ko waaye da ngay dem ci mairie yi wala ngay dem ci yenn bërëb yi ci fii da ngay dem wallahi alazim da ngay jàpp da ngay foog na yow sax bokkuloo ci dëkk bi bokkuloo ci dëkk bi parce que dañuy wax na ñu ne ñett dafa am ñu ne Sénégal moom boo fi ñëwee foo bugg a dem toppatoo sama nijaay moom boole yow wala sama tante wala sa wuy umpaañ waaw beneen bi ñu ne boo demee lu mel France moom ci tubaab bi dañ lay wax ne moom CV lañ lay laaj lañ gis kayit américain def lay wax loo mën kon nañ fexe ñu defaraat politique Kaolack ñu xoolaat kawlax bu baax a baax a baax Kaolack am na salin salin bi lan lay jëriñ Kaolack war nañ koo xam Kaolack saalum gerte gaa ngi fii lan lay jëriñ Kaolack war nañ koo xam war nañ fexe aussi baykat yi di gis seen bopp ci gerte gi bu amee ñu jënd ko jënd prix bu baax su ko defee tamit ñu état bi jëndee ko prix bu baax ñoom ñu mën cee jaay prix bu baax boo xamante nañ ci mën a dund man cee def leneen waaye bu fekkoon tey toog nañ gis si la dem bay nawetam jeex mu mën a am dundam mën a jënd oto mën a tabax këram ñëpp danañ bàyyi ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw bay danañ bàyyi capital yi dem ñëw bay si te moo tax toujours rek léegi nag ñu buñ favoriser ñenn ñi baykat yi ñu néew leen doole te ñoom ñoo yor àdduna bi kon bu boobaa réew mi de ginnaaw rek lay dellu loolu mooy mooy li ñu wax ronkoñu baa doole mooy buur waaye nag malheureusement nit ñi nag dafa am ne lu ñu doxalee nañ xool suñu marché bii Kaolack dafa nekk euh, célébé yoon xoolal suñu marché yi ba léegi amul marché yi pour ñu tabax ko sa problème la dañ lay mujj wax commerçant ngeen tabax parce que ki xëy jaay bëgg a liggéey il faut que mu am fu mu jaayee mu dem daaj dugal waaye dañoo war a tabax marché yi marché yi lu muy liggéey di génnee organiser wuñ ko débordement bi xoolal garage yi mel nii yooyu yëpp dañ ko war a si Kaolack kon Kaolack war nañ ko taxaw maa ngi ñaan président de la république nañ gëstu kawlax mais wala ñi jox Kaolack fekkente ne suñ maire bi ñu jox Kaolack na fexe su fekkente ne mën na ko mu jéem a euh, dox ci population bi gis nga maire. maire boo xamante ne yow Kaolack xamuñ la am na quartier yoo xam ne xam na la xamoo ko wala ña la fa nekk luñ la wax la fa nekk lu dul ñoom seen poche rek bu baax ñu ngi lay nax kon ñu ngi wax ne yal na yàlla dimbali ñun dimbali suñu réew mi waaye dimbali suñu région bi di région de Kaolack parce que ñooñu mën a limal ku mel ni Abdoulaye Mountakha président kooku xoolal lu mel ni Médina Baye bu fa lu fa xew mu ngi jël. ay télévision di fexe di feeñal liggéey bi nga xam ne mu ngi am fii di koy fësal fu ne ci moyen boppam ku mel ni Ousmane Noël xoolal bu lu xew mu ngi jël xoolal lim ti def le maam Khalifa daara ñu tuddee maam Khalifa Niass mu jël ay million mu def ko taxawu ci pour ñu defaral daara maam Khalifa mu taxaw lu bëree bëri ci liggéey lew nañ seen xoolal ku mel ni Pape Demba bi tey tey ñu dénk ko san directeur général Sénélec tey muy koo xamante ne tey nit ko am njëriñ la bu ñu leen am na njëriñ mooy tey jii xoolal bi ñëwee ci marché bi marché Kaolack ni mu def ñoom def na fi benn journée yoo xamante ne trois jours yoo xam weekend boo xamante ne def na ko di euh, kéet waay Kaolack ñu mel noonu kon ñu mel noonu war nañ leen a jàppale bu baax a baax ñu mel noonu leen war a jàppale kon li ñuy wax nii rek mooy li nga xamante ne rek mooy li baaxal Kaolack lii daal rek la wax su ko defee dañ boo ñu naxante bi nañ wàññi arrogance bi amul benn solo di di di torturer nit ñi di di di booy nit ñi lu ne nañ ko bàyyi te ñun nag Kaolack comme ni ñu ko waxee rek Kaolack lañ ko fonk lañ ko bëgg te fépp ñu mën a dem rek Kaolack moo ñu ko gënal comme ni ko Baye daan waxee ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñi di ndokkeel ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu